bakaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat ma dellu kañaat bakaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat te tànk ci gi jëm gi saxoo du su gépp wet te tibb ci xeewal yi ko wër dellu seddu waat nawet baa ngi waamew yàlla waa ngi diwal fu ne lu ay tex mu sax meññit te doo gub mu siqiwaat ku dëkkaale ak yàlla ngi nii bàjọba ngi nii kuréel ay jaloore ngi nii di xudwatu saalihaat lu jim njaaga maam jaara di njaag umu seyxana borom ndab lu fees lii del kuy ñëw di regg xaat. wallaahi am na solo de macha allah. macha allah ca bay bay.